non ba doon dem ci argumentaire bi ce qui s'est passé mooy ki la woo ni la bindul nga bindu mu ne la nangam boo ko defee danaa ko rafetlu nga def ko mu rafetlu ko ci biir réunion bi am koo xam ne nii membre la ci secrétariat exécutif national comme man mën naa tudd turam parce que amul dara lu ñuy nëbb muy Farba Ngom di député maire ba may wax ni dama bëgg a nekk candidat nekkul ci salle bi xëy na dafa demoon ci toilette wala mu amoon leneen lu muy dox ba mu ñëwee ka mu dendal moo ko ni am na benn baat bu fi jib déposer candidature auprès du président Macky Sall ko wax loolu. xaw ma ku ko wax mais bi muy bi muy dégg bi may bi may wax ni man candidat laa nekkul ci salle bi bi mu ñëwee la ko ko nit wax bi ko ko nit waxee moom fekk na mu jël kàddu ba pare bi ko ko nit waxee. dafa dog réunion bi dog président Macky Sall dog réunion bi ki ñu doon wax wax ca kaw yow ku la bàyyi nga ni da nekk candidat su ko tontoo su ko tontoo su ko tontoo miiru salle de réunion bi ñoo ko tontu parce que foofa foofa foofu du tontu bi xam tontu bi ngir ñaari mbir. du tontu bi ndax kenn joxu ko kàddu man mënuma tontu ku ñu joxul kàddu du tontu tontu foofu du tontu bi aussi ndax war ma bu ma jox kii présider réunion bi di président de la république di président alliance pour la république di président euh, majorité présidentielle. ñetti war ma yooyu ma jox barab bi jox ko Farba ci boppam jox ko président jox ko ñi ma séqal réunion bi moo tax tontu bu du woon foofu. ma defee ni mbir mi jeex na réunion bi jeex bi réunion bi jeexee ñibbee des bi ma ñibbee bi may ñibbi jaar ci buntu salle banque di dem di ñibbi sama kër far Farba Ngom yëkkatiwaat ay kàddu jëmalewaat ma ko ni ma yow ku la bàyyi ngay nekk candidat ci yow mënoo gagné bureau de vote Aziz <laughs> bu ma rey waaye. amee lu jar a reetaan la mais man ma reetaan loo parce que amul solo mënuma yow mënoo gagné bureau de vote xam nga euh, dafa am loo xam ni. dama koy wax ndax lu ma soxal la te lu ma farataal la ci li ñu dëkkmal tey bu yàlla dogaloon ñu ni Abdoul Aziz Diop président de la République du Sénégal cinquième président la République du Sénégal lu ma farataal la. Mm. mooy waajur bu góor ak bu jigéen. am na mag fokk moo tuddaat mag mi Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum moo ko wax ci benn conférence bu mu def mën naa jàpp ni c'était en 1964 boobu dañuy door a sax am indépendance mu wax ni yow waajur bu góor bi ak yow waajur bu jigéen bi man Abdoul Aziz Diop di waajur bu góor yow may mun a ngay nur fay di waajur bu jigéen yow soo melee ni nga war a mel ci wàllu xam-xam mel ni nga war a mel ci ay ngëneel yàlla def ci yow ndax danga farlu ci sa bopp ba ñépp ni may mën a neex na gis mën nit mën na séq moom pénc mi ndax nit mën na ànd ak moom defar dund yëwanal pénc kon may mun a gàcc ngalaam te doomu may mun a melul noonu sëriñ Cheikh nee na ëllëg yàlla daf lay àtte ndax nanga mel ci xam-xam sa doom melu ni na nga mel ci ngëneel newul ci. mais mais mais parabole bi ana kii bi lan la. même ma ñëw image bi nga utilisé. même ma ñëw même ma ñëw di nga comprendre bu baax li may bëgg a hmm. wax. te ñi may déglu danañ comprendre bu baax parce que ñoo ma raw xëy na sax jëli nañ ma te àgguguma soo baaxee te sa doom melul ni yow ci mbaax ëllëg soo dajee ak sa borom daf lay daf lay àtte te Serigne Cheikh wax na lu gën a garaaw nee na. yàlla dana àgg ci yow ba dafay jip daf lay jippi yow jippi sa doom boole leen yir ñaar yóbbu safara ndax la ndax yow mel nga na nga war a mel te sa doom melul na nga war a mel gis nga ki sañ a yëkkati kaddu ci réunion bu chef de l'état présidé te kenn joxu ko kàddu mu wax ca kaw dafa am lu ñu waroon wàccoog moom ci yar ak ci njàng ak ci jàng ak ci tàggat loo xam ne nii donte bu fekkee ne wàccoo nañoo moom moom jëfewu ko moo tax tontuwuma ko waaye li indi li ci topp mooy bañ fa jógee lu jiitu ñu jóge fa ba ma demee ba war a tàggali ko ki présider réunion bi di sama président parti di président république président Macky Sall dafa ma wax Abdoul Aziz ma ni ko jàkk mu ni ma danaa la recevoir ndax da nga déposer candidature ma ci yokk ni saal ba bari nañu ñuy tudd tey naan dañoo bëgg a nekk candidat bis ba bu dul man du Ablaye Diouf Sarr ña nga woon ca salle ba waaye yëkkatuwuñu seen kàddu ni candidat lañu. Mm-hmm. man mi yëkkati sama kàddu ni kàndidaa la amul kenn ku ma ñaaral ku du Abdoulaye Diouf Sarr gannaaw bi man Abdoul Aziz bu ci bu mu mu bett kenn aw ma fenn fu may jëlee xabaar lu dul ci yéen journalistes yi seen xëtu journaux yi seen te seen euh, journaux télévisés yi seen plateau yi seen site internet yi man Abdoul Aziz jëlewuma fenn xabaar bu may jëfandikoo di ko wut euh, di ko euh, di ci di ci wut ndëgër laay ci li may bind ak li may wax li may xalaat lu dul dama ko tàttaan ci yéen journalistes yi journalistes yi sa confrère bi tudd les échos def à une le président Macky Sall a reçu un tel un tel un tel et un tel ci ñooñu mu recevoir Ablaye Diouf Sarr ci la bokk te mennum Abdoulaye Diouf Sarr Abdoul Aziz Diop ñoo nekkoon ci salle bi yëkkati seen loxo ñu dañ bëgg a nekk candidat loolu yéeme ci sama dégg-dégg ba mu yéemee ci sama dégg-dégg du lu ñaaw. lu ñaaw la waaw lu ñaaw la ndax ki la ni danaa la recevoir warul dem fenn bu fekkee ni dafa commencé recevoir te wàccoowul ak lu bon bon ñaar ñi nga xam ni ñoom ñoo am fayda ak fulla ak dogu ci ne dañ bëgg a nekk candidat bu dee recevoir keneen na ko recevoir waaye ñaar yooyu yoon mayu ko mu ci recevoir kenn bàyyi ki ci des